te kontaan rek tamit ci Mariatu rek soxna Botor waaw soxna Botor ndeysaan démb dawal na yërmande yaram mi ni ni daw nañ démb rek yonante bi ne moom sama rongoy tuur na ci démb ndeysaan Mariatu ñëwee foofu te commissariat bi fekk ko foofu ndeysaan sama yaram da cee daw ba sama rongoñ tuur barke Mohamed wallaahi ñun aw ah, xamuñ lu bon duñ def lu bon waaw kay xam ko xamul lu bon du def lu bon wax dëgg yàlla luy tuur sarongoy dafay day yomb barke moo amee wala lum liggéey aaw ah, yëpp nag fàtte nañ ko ndeysaan di koy yërëm xoolal lii rek ziar naa leen ndey rube ziar naa la yéen ñëpp Ablaye kay fekk fi débat rek ndeysaan tey jigéen jigéen a sonn barke Mohamed da nga sëyal góor yi sëyal njëkk yi sëyal xaritu ñëpp hmm? moo tax sëy ba dee rek nga kaablaay dégg naa sa waxtaan fii dégg yàlla nit dee boo fonke say waajur rek koo ci gis rek war nga ko boo fonke yaay yaay boo gis war nga ko fonk war def nday baay boo gis war nga ko def baay ci ci yarin la rek lin la yaree rek am nit lin la yaree rek moom nga yóbbaale waaw nen moom góoroo mooy ndey parce que dangay jóge sa kër baay ñëw fa kooku mooy sa yaay wala sa baay waaw bu la nangu uuf ma sant nga bu la nangul uuf tam fexe ba uuf la rek la baax na bëgg naa dugg ci waxtaan yi waaye dama sonn sama baat baa ngi kii wax dëgg yàlla fay naa leen ñëpp ziar naa leen ñu fekk ci bunt bi dëgg yàlla de moom nit de wóorul wax dañ ma def rekk may fayu boo fayee tolloo ngeen waaw nee na mbaam bu la wekkee nga wekkaat ko yéen ñaara yam moo tax ku nekk war na xel bu ne euh, ku nekk war na kii xel moroomam jàppee ko xelam daal waaw na xelam foofu la toll dëgg yàlla c'est film bi moom li ñu joué yëpp moo ci réew mi moo am ci dëkk bi du jeex du xaaj waaw dañuy yeete rek waaye loolu moo am sax ak bari ak bari wujju yaa wujju peccor ga yàq yëpp ak a bari affaire bi daal mooy lool muñ rek ak góorgóorlu ak tamit xol yor xol yi baax xol bu mën a muñ waaw xam àdduna xam nit boo xamul àdduna lu la neex nga def lu la neex loo def nga yaakaar lu baax nga def waaye balaa nga koy xam day fekke eh, nu tudd béy romb xama wéy mbuus xama romb mbuus waaw xam nga rek yéen a ma gën a xam xam nañu place awoy xam nañu place awoy te duñu musu ci yéen duñu musal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sama mbokk bopp yi sama dëkkandoo yi sama xarit samay doomi ndey ñu ngi leen siyaare bu baax ngeen bëgg a jël suñu place Abdoulaat Gagne Touba Marsaba ñu ngi leen di siyaare leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal fanaanum jàmm yàlla dafa leen ko ngeen yeewoo benn benn. daje ba xam nga bu leen ko ci dëgër mais yéen lan moo tax ngeen dëgër boppam koo xam ne ni morom nekk la wala xëm la li jëxam la wala la man saa yi ma gisee vidéo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala yooyu yëpp dama damay ñëw rek supprimer dégage di ñaan yàlla arrêté leen waaye ñaata yoon am yéen ko këliwaate pakkale. jërë ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm. Ndeye waxate nga dëgg waay. <laughs> day daa bëri de macha allah ba tamit day koo seetaan lépp. ay eh, waay nee na bii daaw ah, yéen a bëgg a nangu seen place kuy nangu seen place yéen ngeen ñu ñëw bëgg a nangu seen place <laughs> ba ma ray waay yéen daal yéen ngi noonu daal yéen daal ñaareel yaa ngi noonu rek nga ñëwee dañu bëgg a buux. na aw génn rek ñu faax toog oh, yomb de loolu day yomb kenn mun leen boot ku leen boot ngeen jël puso ngeen koy jam ci ginnaaw waaw kay boo déggee joxe bopp ràcc làmmiñ moom ngeen di def gis nga soxoro defoon na ko fi anamul lépp ay teg dil la dara munu ko day day day di kiyante mariette di masala fekk loolu igu ci moon fenn ah, di ko sol ay yére nekkoon nañ otees ñu otees ba pare mu dem sol lu mu bëgg ñëw di di di lakkay daadaa may leen ñu yéen daal ñëpp leen xam may leen ñu jàmm ah, ñaareel ma ko yor nag. ba jël doomam bi man du ma wax ak góor benn jabar góor benn jabar du ma wax. damaa jooy sax problème rek nga am. dama ko mujj yërëm xalaat man di ñaareel la maa ngi nii ñaareel xarit jëkkëram maa ngi nii. ma koy yërëm ah nuyuwoo ma man la. nuyuwoo ma daal fayuma la ñaareel dañoo ko yor man du ma wax ak góor benn jabar góor benn jabar du ma wax ak moom. man nit ñi dëgër nañ bopp de nit ñi dëgër nañ bopp vidéo bu leen dugal vidéo borom kër gi bëggut vidéo yéen da ngeen waay dimbali ñu ngir yàlla dimbali ñu vidéo yi borom kër gi nee na kenn bu mu dugal vidéo man moom démb damaa juumoon boo baaxee di nga ko gis nga gis fayam boo message moo tax ma dugaloon vidéo maa ngi jégal waaye ay ngir yàlla dimbale nit ñi. borom kër gi nee na vidéo buñ ko dugal buñ dugal. doy na waar de. Ah. yàlla baax na waaw su ma dellusee si thème bi moom man la faat su ma dellusee si thème bi ah, awo eh, man de yi nga gis gis mooy ndey dama ko dama doon toog ngay wàcc ci pajaas bàyyi ma mu toggal si atu yàlla waaw bàyyi ma fa kenn parce que yaay ak nu neexee yaay nu neexee ci xol lii bu lii bu juddoo tat nga xool seet duy ci biir yaayam <laughs> aw moom bu jooyee lu muy njëkk def teen xool yaay ji neex la si xool jëkkër ji la indi takk la indi génne la sa kër baay sa kër baay indi la nga jàpp yaayam di jooy est doo tëye man de bu fekkoon ne man maay góor ma doonoon góor jabar xootu na yaa xool bu bon sax dinaa la baax <laughs> man daal dama la wax dara fase laa lay ñaari nii daal yéen ñu noonu parce que man ay loo may moom dama bëgg sama yaay ci seen biir xol bi parce que yéen ko xam seen seen seen seen jëfin la yéen a ko xam yéen a koy jëfe yéen a koy def kama fekk ca góor ca xawam la bëgg si jëw ma ay moo tax ngeen xam ko man ñun li ngay wax li sax xamuñu ko man sama gis gis sax ñëpp laay bàyyi lépp yéen la ci yéen ñii la dañuy nekk seen ginnaaw ah ñeen ñi jamb rek ñi doom nooy bi maa ngi ko dugg seen am na ñeen am ñi mokkal nañ mën nañ ko di wane seen bopp ñu leen ko leen boole nga ñeen da ngeen loolu yëpp tamit am ci kër man de maa ngi naan amiin amiin yàlla loolu dégg yow ñoo far sama gaan gu quoi bul teg loolu mais nag ñaareel moom man damaa xamul lan la mais ñaareel daal man daal mooy loolu waaw man daal aaw yi laa àndal nii ñu fulfulaale mooy loolu lu baax kon damay roy ci yéen nit ki boo roy da ngay roy lu baax mais bu roy lu bon yaa ma gën xam man damaa fekk dama leen na ñëw fekk ci biir kër gu neex gi kër gu am jàmm gi ngeen di def lu baax di wax lu baax soo lan laay def topp seen gannaaw rek di baax ànd ak yéen di wéy di dem xam naa loolu moo ëpp sens ok laay doon day maa kontaan ci yow amal jàmm bu mbëri bi nekk xaw ma itali eh, jaar naa la lu wér wér naka am jàmm kay mama amal jàmm bu mbëri doole waaw kay euh, Ablaye sama doomu baay sama mbokki salotee bi ziar naa la lu wér a wér ana ndey rubé moom raar nga de nit ki suba ñëwal waaye namm naa la Fatima Sall namm naa la lool lool lool lool mais li ma métti ba sama mbokki Gambien bi nga baax ah, amoon naa fi mbokk nga baax ko yow moom am naa loolu yow am naa nawe jëla PV ma sa kër dinaa fayekul sama mbokki Gambien bi dañuy ñëw nopp sa jëkkër la force waaw Mama, I didn't know ah, your name, but I have to know your name. I have to tell you thank you too, and you are welcome. So, how are you doing? How is the afternoon? Are you doing good? Oh, Mama, I love you. Love you so much. I love you, but uh, because of uh, you are speaking nice English, and I have to say. Uh, you are in the best in this world i'm very very happy mama i'm very happy okay mama have a good night and a sound sleep